waaye dafa am ñoo xam ne dañ cee ne te sonn ci lool te yàgg ci te mënuñu dara te war a dem toogi nelaw tëdd amuñ ci dara mënuñoo dimbali seen waajur def dara kon doo wuti leneen seeti ko ñu màgget ñi ne ci fecc ñu sonal nit ñi di indi ay provocation pour bëgg euh, ku ku a siiw ni mbaaco wala am bayre ni mbaaco comme ko yàlla wax yàlla mooy mayee bayre yàllaa ko def ci man du lu ma sangu du lu ma takk da nga koy def comme ni ko mbaaco defee wala nga mën ko comme ni ko mbaaco mënee waaye doo ko jaarale ci mbaaco pour am succès ngeen li ci show bi du la tontu ku ba ku bëgg a am succès wala bayra da def ni mu def waa dëgg neexul dee leen def ni mu neef ndax.